ñëwaat nañu tay matina ce mardi 21 février 2023 à 8 h ñi ngi ni euh ñi ngi khabru euh hasan sutu euh, yonent bi imam jafar sutat yonent bi imam Zaini Abidin sutat yonent bi imaam Ababacar Sall statu yonent bi ñu ngi jàkkaarloo tamit eh, Fatimata Bind Asad yaayu Seydina Abi eh, Alioune Abi Talib eh, ñu ngi jàkkaarloo aussi Abbas baayu Abdallah Ibn Abbas Abbas ak ak euh, Hamza ma nekk Uhud ak Abi Talib ak yéefar bu bon ba Abu Lahab ñoo bokk baay Abdou Moutalib moo leen jur euh, ñoom ñëpp ngi fii nag ba mu des Abu Lahab moom euh, ci kéefar la dee moo tax yàlla alako ba wax tabat yadda Abi اللهم صل على محمد وعلى محمد ني كوم ني كو يون دومي يونت تيالا محمد عليه السلام نوفيتد آه، زينب رقية ام كلثوم اللهم صل على محمد وعلى محمد فاطمه بنت رسول مون ميغي ci place bi mais ci biir waaye policier yi dañ koy nëbb gis policier yi en tenue ou bien en civil euh, la ñuy nekk di taxaw di surveiller fii soxna yonent bi alayhi salaam ñoo fi nekk sunu yaay Aïcha sunu yaay Umu Salamata sunu yaay Umu Abiba euh, Hafsa euh, kon soxna sunu yaay Aïcha umm Salamata euh, euh, Abiba toujours sunu retour à Médine ce mardi 21 février 2023 à 8 heures Euh, ñu leen di présenté wala à nouveau Alimatu Sadia kii nag moo nàmpal yonent yàlla Muhammad alayhi salaam ba ko ñëpp euh, euh, dawee ngir nee nañu ay wajurum amuñu kon Alimatu Sadia bii nag moom moo cosaanoo taif Euh, moo tax ñu naan euh, ba yonent bi alayhi salaam euh, ba mu sonnee Makka dafa daw dem Taïf kër ndijaayam pour ñu jàppale ko waaye ba mu ñëwee dañ mag ña yéefar yu dañ ko boole ay xale ki dof ñu koy sànni xeer kon Taïf googu ñu ne kër ndijaayam la ndijaayam la ci Alimatu Saadi mi nga xam ne moo ko nàmpal waaye du ndijaayam ci soxna Aminata mi ko jur ndax euh, ki nàmpal euh, yaay yaay la ci yow moo tax ñaar ñu euh, bokk jigéen ju leen nàmpal muy góor a jigéen du ñu sëy ci lislaam kon loolu tax ñu naan Muhammad alayhi salaam ba mu demee Taïf kën nijaayam la demoon waaw kon nijaayam la demoon ci alimatu saadi mi mi ko nàmpal allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Euh, toujours dans le cadre de notre reportage journalier, ce mardi 21 février 2023 à 13h50, à 12h50 du nous continuons à présenter de nouveaux visages ou de la grande mosquée du prophète Mohammed. La prière de Zour, c'est-à-dire Tisbar, vient de terminer les pèlerins commencent à évacuer et à rentrer dans leurs hôtels respectifs. Vraiment, il y a de quoi à être content la beauté des lieux, la grandeur. et la sainteté de la mosquée. Il n'y a pas son égal sur terre. Il n'y il n'y a pas son égard sur terre, pas possible, impossible de voir un édifice aussi vaste, aussi grand, aussi beau que la mosquée du prophète Mohammed Ça, c'est des parasols. qui empêche les rayons de soleil. de pénétrer à l'intérieur de cet espace. Euh, sur une troisième ziyaara ngini. Euh, minbar sayyidina Muhammad al-salam bimi wax mi ngi nii fii daan taxaw di khutba. fele bilal bi taxaw muy not ak lu jottali ci kanam bu ñu weesoo minbar bi ni ci lañuy yegg ca euh mihrab am niñ ko foxe woon rek mihrab ak minbar bi bokul mihrab ba fa taxaw di julli fa la taxaw di julli minbar bi fi la dan taxaw di khutba mune nak digeunte min baram ak fewmu mu tay muy xabrom neena place la ci place aljana yi yalla ñu yalla dugal aljana ma ngi ci ñaanal sama njaboot Moustapha Tall ak njabootam Makhtar Tall ak njabootam Abdourahmane Tall ak njabotam Ndeyawa Tall ak Papa santal ak Cheikh Tidiane ak njabootam yàlla ba yàlla bayal Cheikh Tidiane njaboot ku barkeel Mansour Tall ak njabootam yàlla ba yàlla bayal Mansour Tall njaboot ku barkeel Yaxya Tall ak njabootam yàlla na ma yàlla bayal Yaxya Tall ak njaboot yàlla na yàlla gën a barkeel njabootu Fant Kabara ci ci barke Mouhamed alayhi salaam salli ala Mouhamed wa ali Mouhamed kon bon. rawdu jantu Tuubaa ngi noonu ci biir mi ngi nii ñii di taxaw di julli mooy rawdu jantu bi allahumma salli ala muhammad wa ala na yàlla jéggal te yërëm xalaatee na suñu waajur yëpp te bés bu ñu leen fekkee yàlla nañu yàlla boole ñoom biir àjjana allahumma salli ala muhammad wa maa ngi ñaanal bu baax njabootu mam Saye tal njabootu bay Assane tal jurbel njabootu mam cerno Kandji jurbel bay ah, ah, mam Saye Tall tal ñepp ngi ci biir njabootu cerno Kandji ñepp ngi ci biir ma ngi ñaanal sama ben jarbaat bu ma sopp te yalla tax. Euh, ici à la se, ce vendredi 24 février 2023, à 12 heures passées. Euh, les pèlerins sont bien installés, bien habillés, très beaux dans leur ihram, plus précisément dans leur armal. Euh, d'un moment à l'autre, l'imam viendra délivrer son message, son discours, son khudma destiné aux pèlerins de la Umrah euh, de ce mois, de ce jour à ce jour pour ce jour de 24 février 2023. Euh, euh, pour euh, destiné euh, aussi à la Oumma islamique tout entière. Vous voyez, vous avez vu comment ils sont bien rangés, ils sont bien disciplinés, ils sont très beaux dans leur ihram. tous les hommes sont vêtus de blanc. quelle discipline, quelle beauté, quelle blancheur. Que le bon Dieu nous accorde euh, la bénédiction ici terre et dans l'au-delà. Pardonne nos parents nos, qui nous ont précédés, qui les accueillent au paradis euh, euh, fidèles aux côtés du prophète Mohammed, la meilleure des créatures. Qu'Allah accepte notre Umrah, nos, toutes nos toutes nos actions, tous nos actes de dévotion accomplis ici en terre sainte. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Nous le prions euh, pour qu'il nous accorde la paix, la, santé, la possibilité et les moyens surtout de pouvoir venir euh, l'année prochaine effectuer la et la Omra. Nous euh, prions aussi le bon Dieu qu'il donne la possibilité à nos enfants, à, aux membres de notre famille, à tous les musulmans de pouvoir venir effectuer euh, la Umrah El euh, qui est une injonction euh, donnée par Dieu dans le Coran, plus précisément à la surat Bakhara, sourate 2, verset 195. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Prions le beau Dieu qui nous accorde la possibilité de pouvoir revenir l'année prochaine, Inch'Allah Rabbi.